wajana wax ba tey ma ak dikk bu fekkee ne yaa ngi ko fàttalikoo bu àndee ko fàtt dina war tas bi bu xaadara tey nii soxtale ñaari julli ñu di way teew comme tisbaar ak takkusaan wala timis ak gee cher fan mbir mu di sàmm nag nga xam ne su fekkee ne kon difuloo ko dañ yàqu ban mooy yàqu fekkee ne tey da ngay fay takkusaan commence bi commence fay tisbaar takkusaan yàqu na bi nga fayee tisbaar dañ ciy dala tegaat way fois iti waji way faat yi way faat yi julli ji fi anfusiha ñoom rek ci seen bopp seen jëmm way siiriha ak aji néewam war na fay ko ma axaadiratin ànd ak aji teew maanaam nga taftale ko bu fekkee da nga wal fois it da nga faat ñetti julli wala ñeent suba isbaar takkusaan timis nga tàmbalee ca wa war na toxtale bi nga tàmbalee ca suba fekk isbaar fekk takkusaan fekk timis fekk fay ci am ci saa way siira mooy way néewam bu fekkee ne itam julli yu néew la mooy yu manque mooy sax moom laa misaale li nga xam ne wal fowaade fii ak fowaade fii moom kon lu bare lu néew la ci am toxtale bi waaw waaye bu fekkente ne nag dafa néew moom it noonu nga koy toftalee ak way julli bu teew ji li ko tey jee jot na nga fàtte suba tisbaar takkusaan timis da ngay tàmbalee sa suba teg ci tisbaar teg ci takkusaan timis teg ci bu teew ji ñu ma xaajale ci nga ne ko xanaa booba daf fekk waxtu wi yaatu waaye bu fekkee ne boo jullee julli yooyu yëpp fay ko soo ba dellu si julli julli bi da nga fekk moom itam mu faat ba nga di ko fay mu ne bal ma xaar wala in xaraja donc namoon naa génn waxtu waa waxtu julli bu teew bi itam bu tee rek da nga koy toxtale nga jiitu jiitu bi ci topp topp ba nga agsi biir sa ko julli mu ne waan jaam yàlla ndax ñi ak aju néew bi way faat ndax arbaun ñeent julli la aw xam si wala juróom mu ne xilaaf am na fi mu wute su fekkente ne dañu ne lu néew mu ngi yem ñeent kon boo fàttalikoo juróom mën nga ko bañ a toftale waaye li gën a dëgër mooy juróom muy julli bis moo war a toftaloo bu ko defee bis yëpp seen julli nga toftale ko ni ko wàccee woon gannaaw ñu Seydina Jibril jàngale ne am di ko sala di tàmbalee ko tisbaar mu ni xëy xaaral bu fekkee ne wóotale na jëkk naa fay takkusaan soppee ko tisbaar wala am dan dootu moo ko teyoon it a aadam na baamu bu waxtu dërëw ci waxtu dërëw rek lay baamu la mu ay mu fi aada ci maamu ni mu ci baamu ci ci ci ku ko waxee maanaam bu wutee la maanaam bu wutee dafa wóotale maanaam daf ko tartib te loolu ci biir fay tisbaar fekk takkusaan mu njëkk takkusaan fekk tisbaar wala mu def ko tënk ci bu fekkee ne wóotale na maanaam ni mu ko waroon a defee dégg nga bu fekkente ne wala mu jiital bi nga xam ne moo teew dégg nga bu ko defee ndax kon dafay dafay baamu ba faw wala day baamu rek ci waxtu daroore ñu ne bu ko teree bu ko tëy yëpp ci ngërum imam Malik day baamu fépp daroore yi jeexu maanaam moo gën a foor comme li ñuy baamu ci muktaar ndax li ñuy baamu ci muktaar ngën ne rek ne doon waaye bu fekkente ne daf léegi tisbaar ak takkusaan jullee boo ko woon bay ba waxtu yooyu nga bëgg a fay tisbaar fay takkusaan nga tàmbalee ci takkusaan soo nga julli tisbaar léegi day mel ne jullee woon takkusaan yàqu na waaw tak tisbaar bi nga julli la ñuy compter ci nga tàmbalee nga julli takkusaan ñu bëgg a ñëw boobu bëgg takkusaan bu ko defee toftale ko waaye fii wax wala ku daru yi nga xam ne wala ku daru nag moom muy mooy lu jur ba ñetti julli waaw wala ñeent ak ak benn waaw ak ak benn bi teew léegi teew bu koy def mu bëgg a jiite léegi day jiit doo ko dem julli ji waaw comme moom li ñu koy sant mooy na baamu na baamu.
wala ku wax daru waaw wala ku wax waaye bu dee yi teew moom ñaari teew waaw ci tokkoon ci yow nag moom te moom kat bu ñuy julli takkusaan nga xam ne da nga koy fay moom dafa doon julli fay takkusaan ak moom waaye moom julli woon na tisbaar ndax kon moom it dana baamu moom itam ci takkusaan bi yi nga war a baamu ndax moom itam dana ko baamu wala du ko baamu moom la ñu am wuute ne xilaaf yi dégg ngeen si dégg na bu dafa sëlma ba nag maanaam lii daf ci dégg na masala mi dañ ci dégg dafa sëlmal ba noppi moom moom maa imam waaw parce que ndax moom la njëkkee waaw sëlmal ba dafa sëlmal taksan ba pare nag commencé di julli nag tisbaar moom ñu ne ko nag léegi da ngay da ngay baamuwaat taksan ndax mu mujj géej gi ndax mu mujj da ngay baamuwaat tis- taksan ndax mu mujj tisbaar bi maamu daal di teel a ñu julli woon tisbaar moom maamu mu xilaf waaw ñu ne nag dafa war a ndax ki ñu toppoon ci moom julleem yàqu la kon julleem yàqu la ñu ne déedéet ndax dafay julli di farata la julli farata la te naka loolu la charte yi te moom ci boppam amul benn ngànt xam nga kooku ñu ne xale yi fara ñu jël moom kon ñu ngi ànd ak ñeneen maamu mu du baalu te sax maamu gannaaw day baalu bu dara war a rek julleem yàqu kon daje nañ si loolu nag mu fàttaliku na moom ak julli ji al yasira ak yu néew ci julli fa ci salaatin ci biir julli xata mu ne xanaa booba ci julli juróom dafa dugg mu ne wala jum xasan doon te jumaa lay xata daggat na kuy dagg sa bul adiyati yow doo ngay julli nga fàttaliku nga dem ba kàbbar nekk ci biir julli di fàttaliku ne kat julli gee fàttewoon nga sa xable salaam te yàggul wala fàttewoon nga sa faat wala aw saar wala fàtte wala fàttewoon nga benn rakkaat wala julli woo ko woon julli ji dem jeex da nga war a dog dégg nga waaw même bu dee xam na saa mu ngay dem mel da ngaa war a dox xam nga salaam ñetti sunna waaw.
ndax xam nga xam nga salaam ñetti sunna wala sunna si jot waxoon nañ ne day yàq boo génnee jàkk ji wala mu yàq boo ko naan baax salaam moom wala baax daa amin dégg nga mu ne waaye bu dee docteur koo chifa tollanteeg na fekk benn rakka la amoon balay dog julli gi na ñaareel rakka bi sëlmal ko muy naafila waaye nag ci charte dañ rakka àndoon dafa dafa rakka rukkoon te nga xam ne rakka bi fasu na kon am na rakka léegi mu ñaareel waaye bu fekkee ne rukkoo bu woon rakka bi fasu booba amagul benn rakka kon mën na julli day daal asalaamaaleykum rek benn
waaw ma des foofu ba la ñuy jàll. léegi yaa ngi maanaam yaa ngi ci jaaraat bu njëkk. nga jàng bu war a sëgg sa xel lañ gis waaw ndax man jàng naa Fatiha aussi jàng naa neuf mois sax. man daal teewul woo ma jàng Fatiha.
dañ koy baamu tuubal dañ koy baamu tuubal dañ koy baam. maanaam da ngay wàcc ràpp.
si de boo ci rakka bi kay xam nga fatiha xam nga fonk boo ko wàccee ci rakka rakka ba yàqu na yàqu waaw.
waaye na fekk fasu na mënatoo koo dabaat waaye bu fasoogul faatagul bu koo boo
dañ koy indi.
da koy indi da koy indi Hmm? dañu sujjat da koy yàqu
ndax boo boo waaye loo sujjat loo sujjat waaw kay boo boo indee saa boo indee Fatiha.
waaw.
ndax da ngay tegaat saa.
ah sopp nañu nga tegaat ci saar bi bañ a jàng fàtte rek pour koor bu fekkee rukoo nag léegi da ngay da ngay wàcc ndax yow xam nga bi nga xam ne nee rukoo góor yow amagoo dara bi nga jàngaloo woon saar jàngaloo fàtte kon jàngaloo woon saar jàngaloo dara
waaw fii nag dëgg fi fi nga xam ne dafa def dafa ànd ak imaam bi ngeen fàttali ko ngeen ngeen baal salaam bu mu war a baax na salaam waaw dafay bàyyi dem ba jël jël sàpp yi dem ba def baal salaam fàttali ko kon nit ñi loolu déedéet baax na salaam xam nga fàttali ko ngeen julli ji moom doonte at lay niroo la xam na salaam xam na salaam moom mooy yàq julli kon lay bàyyi ba pare waaw baax na salaam moom loolu baax na amin te xam nga ne baax na amin bu dul ci téeméeri julli juróom wa imaamum maamum maanaam su fekkee ne moom mi nga xam ne moo juutal julli gi wa maamum wu ak maamum yi moom it ci la maanaam acte bi nu weesu su fekkente ne léegi imaam bi sopp nañu moom waaw maa ngi si waaw waaw waaw wa imaam ak ilimaan maanaam moom itam acte bi ñoo ko bokk day tollanti moom ak maamu moom bu fekkente ne benn rakka rakka benn bu fasul day ñaareel soog a sëlmal bu fekkee ne rakkaam fasul mu sëlmal noonu moom ak maamu moom waaye la mu tëmbul du ca gën aji roy de moom dafa topp si gannaaw iliman mu fàttali ko yesiru xawaayit fekk moom mu ngi si gannaaw iliman iliman jéng na ko moom la muy def kon mu ne fa yuidu yow baa mu kon ci wax ci wax te ànd ak iliman ba sëlmal feeg waxtu muxtaar yu jeexul ba am waxtu yu kaa seedu waaw wala jumatan donte jullit ajuma woon itam su jullit da ngaa nekk ci biir jullit ajuma si gannaaw iliman mu julli juma mu fàttali ko ne yow kat julli woo woon suba kooku itam day da ngay matal si gannaaw iliman ba iliman bu iliman sëlmalee boo demee sa kër julli ci saraat ngay baax ndax man nga baax moom moo ci yow doom ajuma mu ñu ma kàmm la mat mat mat leet ne sa waaw dund boobu ñaareel moom. bu fekkoon ne noonu lay dee loolu xaala boobu am na. waaye ji comme ni ma am fàtte bi ne dem ba kàbbara ak yu ma leen di julli.
fàttali ko nag julli mu fàttali waaw fàtte bi ne julli na julli loolu suuf.
waaw léegi mu ànd ak yu ma am léegi moom bi mu sëlmale rek. ñu jullee ci jàkk ji. waaye yàlla dogal na moom fi mu toll nii moom xam na jàkk boo xam ne bii ci diggante kër mi ak këram moom mën na jàpp ne léegi mën na faa tagu ci aju. ndax léegi tey li ñu gën a tàmm mooy mu dem julli ko aju wala mu dem këram julli ko ci saa.
bu mu nee julli ajuma te te jumaa war ko foofu mu dem julli ci kër fekkee ne li ko tax di julli si jumaa ji dafa jam ne liman bi du ca dina loolu wala mu jam jàkkali waaw bu fekkee nag yooyu am na si bu tudd ko day julli ci sara bu fekkente nag yooyu yëpp lenn amu fi nga xam ne mënoon na faa jullee muy xew wala mënoon na faa jullee day jullee bu kàmmale waaw moo ci lenn fa bun baata chefin gannaaw ba nga xamee ne toll nañ ci ne ñu naan max bi bu dee timis fekkee ne am nga ñaari rakk ngay ñetteel ba defee daal di nag xam nga li ñu doon wattandiku ba tey moo doon rek naati la gannaaw takkusaan ba mujj timis moo tax boo jullee julli bu jiitu timis rek donte jant ko nag dafa mel ne naati la gannaaw tisbaar loolu lañ doon ragal bu fekkente ne nag mu waa ji dafa julli ñaar rakkaa yu sëkk bu sëlmalee ba tey mott ni ñett day daal di nekk naati mooy li ñu doon daw day daal di matal day matal ñetti rakkaa mu di timis bu yàqu ñu def naan ndax kii bi yor na yor wala mu ne fàttali ko ci mbirum bind fàttali ko ci mbirum bind yàqu
waaw moo wala jublu ci ne lii moom ab kii la maanaam jublu ci ne léegi ne maanaam lii moom lu ñu lu ñu maye la gannaaw julli timis la muy ñetti rakk ñu ne waa ji kat gannaaw julli timis la muy ñetti rakk léegi moom fàttali ko na ne am na julli bu ko faatoon fekk nag mu ngi ko fàtte ci julli timis gannaaw bu mu amee ñaar rakk waaw ma defe ne loolu xam dañ nga bu sëlbalee naaf bi rek la mën a doon waaw ndax amul bu gannaaw suba amul benn julli farata bu nekk ñaar waaw
waaw ma ne léegi gannaaw julli timis la tam ñetti rakk la ñu ne léegi di julli gannaaw mu am na ci ñaar rakk léegi tey waaw dañ koy may léegi tey mu continué ndax jàpp na léegi tey julli bi jege woon na ma
xanaa julli du yàqu yi
déet du dañu wax ne léegi bu fekkee ne julli timis la bu ci amee ñaar rakk moom dafa war a continué dafay mott yooyu dafay mottali ndax ndax mottali boobu dañoo bari ñu naan naaf la xam nga naaf dañu traka amul waaw xam naa ko ñaar lañu rakk ndax fi mu ne nii bu ko mottalee loolu day doon julli boo xam ne gi gu wér la wala bu gu wér la xam du yàqu woon na duñ fàtt mu ko leer dèjà dañ ko obligé rek mu mu mu mott li nga xam ne ci am benn rakka bi dañ ko obligé mu mott ni ñaar rakka bu nekk naaf bu nekk naafila.
waaw waaye moom yàqu na yàqu bu ñu taxul muy wax waaye yàqu na comme farata waaye yàqu pour pour naafila bi mooy ci ci ci ñaareel parce que ñu ci am benn rakka amul fàttaliku ak julli ci biir julleem moom yàqu na farata bi julli farata bi moom yàqu na ba noppi waaw xam nga mënatu ko am léegi dañ ko obligé mu mott ni ndax julli benn rakka la kenn xamul waaw bu mottalee ñaar raakaa yi nag maanaam ci ku dul ci islam nga xam ne naafi la comme dagan na mu mottalee ñaar raakaa bu dul naafi la mel ni tey tisbaar la fàttali fekk mu ne julli taksan mu am ñaar raakaa fàttali julli na tisbaar xam nga taksan bi lay di yàqu léegi ba mu am benn rakk faw mu ñaareel mu nekk naafila comme naafila gannaaw si baax foo ko dem julli nag
loolu bu fekkee ne moom doomu la di moo wéet di julli waaw bu fekkee ne ilimaan comme ni ñu waxoon sànq ko ilimaan jéngeen day mottali ak ilimaan ba mottali baamu mooy mooy mooy mooy walaw jum atam waaw ndax moom julleem yàqu na ci gannaaw kirim mu ne فذكر عقب ثلاث عقب ركعة الكعبة من المخرج ولا يشك ولا يشكها لا يؤدي لكن خلق قبلها ولأن ما قارب شيء يقطع قلوبه ndax bu fekkoon matal na ko ñeent day dal di niru naafil la loolu lañ dañuy ragal mu nekk naafil ndax bu nekkee ñeent rakka kon lañ tudd rek dafa jege naafil la te mu jege naafil la mu jege dara dañ koy jox àtte loolu moom yàq bu mu tax a dugg yoon comme par exemple mu tax a dugg yoon daf koy julli wax waaye nag bu fekkee ne am na ñaar naaf lu tax lu tax mu bañ mu ngi naaf yi mooy bu mu ko ñeenteel te bu mu ko bàyyi si ñaar nañ ko na ko ñettal ndax bu nekk naaf la.
waaw ndax bu ko ñettee léegi moom dina naaf la ñettalaat ba mu gën a.
gën a bu bopp loolu la man nag li ma doon yaakaar mooy. maanaam espèce rus la boo xam ne pour moom am na ko si jullit timis rek. waaw maanaam pour wane moom dina julli timis moom comme dem na ba jege mat la nga xam ne ñett raak ko daal ñaari. maanaam dégg nga li jàng xam nga amul ñett raak ñaari waaw ñaar waaw dama ne léegi maanaam comme waaw maanaam li tax ñu obligé ko mu def ñetteel bi ban ñu ñu ñaar xam nga waaye ñun yàq woon nañ comme dégg nga xam nga loolu la ñu gën a maanaam ne yàq na ko moom yàq waxu ko waaye mais daal rus la julli ci déedéet déedéet dañoo xam nga rek naafila lay doon te buñ ko ñëwee tollan tuddoo comme ñeneen ñi day daan nekk naafila te duggulu naafila ci bu gis tamit xam nga mooy gannaaw fat changé ñu ne ko nag nga def ko loo xam ne du muru naafila waaye moom farata bi moom moom moom dañ koy def mu yàq ci benn rakka muy tirit ko yàqu dana am nit waaye mënuñ ko tudd du naafila وإن جميلة كسلاة نكا نك من غيرها تكون تنس مهم يتراكا أو مهم دنكو بيسا وإن جهل لم يرنا عين منسية أنا لم أقول لما أنا واحد لم عين منسية جمي من فاتة فاتة من جمي وهي جم جمي لك moom daal fàtte na julli googu xamul jot julli la dégg nga ah kooku moom la muy def mooy indi problème bii bu ko defee fekk na xëy na julli bi moom xam na ne passé na sax moom taxul mu yàq xamul tisbaar la xamul takkusaan xamul timis xamul gee xamul suba léegi daal fàttali ko ne rek am na julli bu du julli xëy na dafa nekkoon ci fitne boo xam ne duñ dem kooku na muy def sàllaa nu mu julli xam sa juróom waaw suba tisbaar takkusaan timis geer day tàmbalee taqdimu zuhri tàmbalee tisbaar xëy na tisbaar laa fàtte woon julli tisbaar ci dogu ne moom la fàtte woon ci liggéey na mën naa am nag bu si doon tisbaar takkusaan laa bàyyi woon julli ko ci dogu ci fay ba yëpp àgg mu delloowaat ci tisbaar bi mu ko doon julli waaw xamul woon waaye xamul woon moom kay jamono ji mën a doon rek dañuy soxla rek mu tàmbali foofu waaw xamuñu guddi la sax wala déet la ko fàttali waaye fàttali ko ne daal am na julli bu mu julli woon sàllaa xam san wayen alimaha su fekkee ne xam na ko duuna yow mi haa waaye xamul ban bis la woon sàllaa xam julli ko naaw yan lafu kooku moom moo gën a gàtt li ko gën si problème yi ba xam nga ne daal dégg nga ban bis la xamul waaye am na daal tisbaar bu mu fàtte woon mu daal di fay tisbaaru fas yéene fay tisbaaru gis ko loolu julli woon wéy na seen fàttali salaat ak julli wa sànni sa ak ñaar ne sàllaa bu julli sëpp dem juróom nen waaye woon ko sax ay juróom te amul juróom dafa lay waxal la juróom la woon waaw juróom la woon day julli ba daf daan timis gee mu jeex suba suba si dem julli rek la ndax genn julli la woon genn julli la woon kii nag lay baamoo baax ndax dafa ne dafa fàtte juróom benn julli salaatan wa saaniyataha wa saaniyataha muy ñaari julli ñu ko ñu teg lool bu tàmbalee ci tisbaar teg ci takkusaan kon maa julli na tisbaar ak takkusaan toftal ne ko toftalee ji war waaye wóoru ko nag ndax takkusaan ji ak timis la wala déet mu julli timis xanaa kon toftale ne takkusaan ak timis waaye wóoru ko woon ñaar ñii la wala déet mën nay ñaar ñii muy timis ak gee mu julli timis ak gee ba noppi ne ah waaye kat xam naa ne ñaar ñu toftaloo woon la yee julli naa ko waaye man bu ma bàyyi mën na itam gee ak suba mu daal di julli suba fekk gee la mu julli mu julli suba kon toftale na leen daal di ne mën na nekk nag mu doon suba ak tisbaar kon day julliwaat tisbaar ndax tisbaar ji mujj suba ji ndax dañoo ñaar la woon ñu toftaloo benn ak bi ci topp ko ñaareel leen Allah ci tam muy juróom benn wani ba sopp suñu takk mu la ci sabi ci xam ci ak ñetteelam aw rabi ci xam wala ak ñeenteelam aw xam ci wala ak juróom dal ko naka noonu ñu sam ni lay ñaare la bu mën ci dem fateel léegi nan tàmbali julli ak dafa ñetteel suba ngi nii tisbaar ngi nii takkusaan timis gee lan suba léegi ñu di ba taq di zuhuri julli ak da ko ñetteel comprendre day julli tisbaar jël takkusaan julli timis mais waaye kat da wóoru ma ne tisbaar ak timis la xam naa daal genn julli dox na si diggante bi bu ma julli waaye mën nay timis ak suba kon naa julli suba kon toftale naa ko timis ndax damaa pare si timis julli suba kët gee dal ne waaye kat mën nay suba fii ak takkusaan bu delluwaat julli takkusaan toftale na ko moom ne mën nay takkusaan bi ak gee dal di julliwaat gee dal ne mën nay gee ak tisbaar julliwaat tisbaar awraad ak xaaw la ñeenteelam ba tey noonu la lu di ba taqdimu zuhri mu julli tisbaar jënd takkusaan ak timis ñëw julli gee daal ne mën nay geekat ak takkusaan daal di ñëw julli takkusaan ne ah mën nay takkusaan kat ak suba suba daal di tëb julli suba daal ne mën nay suba kat ak timis daal di tëb julli timis daal ne mën nay timis kat ak tisbaar daal di julli tisbaar dellu soir ci tisbaar yi naka noonu aw xam sa taxaar wala julli ak ba ko juróomeel léegi julli ji dafa del soir boo doon ko tax di mu zuhri day julli kii zuhru moom julli ci isbaar isbaar julliwaat isbaar mu ne xam nga ne toftal na jii ak jii mu ne man nay jii jël si ak jii def ko ma ne si ne jël si jii jullee si ko maanaam nay jii jël si ba muy jël si bi mu tàmbale muy suko comprendre ngeen
maanaam day julli tisbaar dellu julli waat tisbaar waaw julli takkusaan dellu julli waat takkusaan waaw كذلك انك من يسن الى نيار لا تسو دي من سين دي ني فاتي غا مانام دي مو تامبلي وان دمو مانام دمو دي كونام دي باي تامبلي كوي فاو نيار وصلى جلتنا الخمس جروم يب مرتين نيار يون muy sukk te daal di sànni bi mën si incha allah alhamdulilah bi mën si waaw maanaam li desoon ci li mu julli maanaam di des li mu julli rek lay wax buñ matro maanaam li mu jullee ba dellu si waat ci booba lay booba lay lay ñaareel ala taqdiri anna awlaahu almasruqu minha bi njëkk mooy bi mu pare rek toujours maanaam di ci tegu rek mu ne waaw wasalla jullee ne alxamsu juróom marché ñaari yoon bu fekkee ne dafa fàttaliku julli ak juróom benn yaram julli ak bu ko juróom benn yaram bi mel si wasalla xam ko marché ni fi saa di fi saa di saa mën na ma misaal saa di saa bu ko def xaalis saa di yëpp ñëwee fi saa di saa kon toujours woon li ma tax a dindi suuf rek tisbaar ngi nii ba dellu seeti ba ci biir takkusaan. waaw. bu ñu jullee takkusaan day dellu seeti ba ci biir bu jëlee bii day dellu seeti ba ci biir bu jëlee bii dellu seeti ba ci biir bu jëlee dellu seeti ba ci biir bii dellu seeti ba ci biir dellu seeti bii ci biir ci la yoon kon war na ñaari yoon
boobu tàmbal bi waaw day dellu si ba dellu si waat te lu tax lu tax
mu julli ñaari ñaari yoon parce que gën a lim ba comme ça maanaam mu gën a lim mu gën a lim daal hein maanaam mu gën a lim ne julli na julli yëpp daal waaw mais ñu ngi ko julli ñaari yoon juróom yi nga julli ko ñaari yoon te daan ko julli benn yoon sax mu julli ko ñaari yoon
yàq xam nga ci pàcc yi bu jullee ñaari yoon wa salla al xamsa marratayn fi sadisatiha
soo nga ne bala xat
da ngeen fàttali ko ne toujours toppale gi moom dafa war te julli bu mu julli rek dana jàpp ne xëy na bii ak di si tegu la mu teg ca dafa tegu waaye dégg nga wër bi mu wër dana dellu si waat ndax lu tax dafa teg benn dafa tegal benn xam nga bu muy ci xaam si texa bu dellu si waatee ci benn bi rek day daal di taxaw bii nag dafa ëpp semaine maanaam dafa ëpp maanaam juróomi julli dafa ëpp julli bis maanaam julli bi dafa am bis yëpp bu mu tëb julli la fàtte ak da ko juróom benneel xam nga ba muy julli ak juróomeel bii bu dellusee ci la ci la yemaat kon moom la julli ñaari yoon léegi bii nag bu fekkee ne moom la julli bu dellusee rek daf koy romb julli ji waaye du caa julli dafa toftale nii ak nii waaye dafa toftale xam nga nii ak nii la bu dikkee si bii dafay toftale moom it bii boobu mu delloo seeti ba maanaam bii wër ba delloo seeti bii léegi bu ñu dikkee ci bii mu tàmbaloon muy tisbaar nga xam ne léegi dikk na ba julli ko ah nga xam ne kon dafa bàyyi woon bii dafa julli bii dellu si waat ba dikk si bi mu tàmbalee woon muy tisbaar yéen a ngi koy dégg bii moo doon tisbaar wala moo doon suba waaw moo doon tisbaar moo doon tisbaar léegi ñaata la julleegul benn bis maanaam juróom waaw waaye xam nga julli ak nga ko juróom benneel léegi faw war na toftale bii ba wër dellu si waat ci bii war na toftale bii ba wër dellu siwaat ci bii war na toftale bii ba wër dellu siwaat ci bii war na toftale bii ba wër dellu siwaat ci bii bii itam bu si jógee toftale bu dellu si day dellu siwaat ci bii toftale ne kon bii ak bii juróom benn waaye toftaleegul bii ak bii toftaleegul bii ak bii toftaleegul bii ak bii
bu jullee ci loolu ngeen ci nag lay day bañ a jël rek yokk benn day day maanaam bañ ci julli la ñoo daal juróomi julli juróom benn julli juróom benn julli waaw ak bu ko ba ko juróom rek du juróom benn julli la fàtte de ñaari julli la fàtte yoo xam ne dafa bàyyi bii dafa julli bii bàyyi bii bàyyi bii bàyyi bii bàyyi bii bàyyi bii bàyyi bii julli ba ci juróom benn muy juróom benneel bi waaw xam nga sax bu bëggee toftale mu ngi mel ne tey léegi julli woo yaa ngi bëgg julli gee wala suba nañ def suba yaa ngi bëgg julli teel a lan dimanche yaa ngi bëgg julli samedi samedi julli woo suba julli woo tisbaar julli woo takkusaan julli woo timis julli woo gee julli woo mu tegu si gee suba suba tey si dimanche julli woo xanaa am nga bisu lëmm boo xam ne julli woo julli yooyu war nga julli bis boobu war nga leen a toxtale ci yaa ngi tëb toujours kon toxtale woo ko subhanallah ah di gisee lu ndax taxal ndax kii ko ndax ma jaar leen ci sara bi ndax wala boo demee sara boo demee expliqué wu ko de sara bi ana moo ci dégg nga mu ne waxtaan laa jigéen na alxam sa juróom mars ni ñaari yoon ci misaali ay ni saatin ci fàtte jëmm julli wa ay ni saadi fatiha ak jëmm bu ko juróom benn wax ne moom mu maasale ko xaa mooy ba tolloog moom mu ne yow misaali ci bisu ñaareel xam loolu comprendre ngeen ah est-ce que ngeen comprendre ngeen mooy suba bi nga tàmbale woon a bàyyi ba tey suba di dellu si ci beneen bis ba nga lan mooy juróom benn julli waaw dëgg la ci su bis boobu da ci suba war a ci duggaat waaw xam nga da muy julli ñaari yoon waaw dégg nga mu ne xaaral sadaqun bi sóoratee ni mu ne ñaari suwar moo ci nekk salaatul xamsi julli juróom mu tawaal yëpp mu ne julli juróomi julli yi lu war a méngale loolu waaye adatoo ak baamu si xalika dañ boo koy baamu dañ ko war a méngale sësale dégg nga wasalaatu zuhrayni nii julli ñaari tisbaar maanaam tisbaar ak takkusaan wala ñaari ñaari waxtu tisbaar fa asri ñaari waxtu takkusaan wa hakada naka noonu ngay continuer dégg nga mu ne ñaari anam la ma xam nga fàtte woo ni ñu ko waxee woon du caa gii ni bis bépp nga julliwul maanaam da ngaa julliwul da ngaa julliwul suba ba bis ba jeex li ci des julli nga ko ba suba dellu si nga julli gàtt nga julli tisbaar kon naa ne ñu yoon kon suba bi ju bàyyi nga ko ñaari yoon léegi boo jullee suba tisbaar quatre cent timis gee tisbaar gee suba xam nga julli woon nga suba julli tàmbale woon nga si suba dellu si nga julli suba ñaari yoon su suba bi nga julli da nga fàtte woon suba ak gatafe maanaam dafa wër ba dellu si ca beneen bis ba léegi da ngay continuer julli ba beneen bis bi maanaam ba fay beneen bis bi maanaam waxtu wacca tegu bu fekkee nag pare nga nga ne xëy na du woon suba tisbaar ba mu wër dellu si ci takkusaan loolu dégg
maanaam fàtte bi daal bu fàtte jugee.
waaw bu fàtte rek du leer.
waaw léegi nii la waaw léegi sama misaal la waaw tomb yaa ngi nii da ngaa fàtte tey léegi boo nan tàmbalee tisbaar tisbaar gi julli woo ko woon ba tisbaar di ji dellu di julli nag di julli di julli yëpp nga julli ko ba tisbaar ñëw nga julli ko takkusaan ko ci delu julli woo xam nga ci bis bale paase tisbaar julli woo ko léegi jël si nga julli ko waaye takkusaan julli woo ko mooy julli di fàtt julli ak juróom benn yi xam nga kon fàtte nga Islam Buddhism Kristen Tauhid Kamu orang kalau ke Zahid Islam Wow amin amin zaham dox seen diggante masalan kon bu ngeen dimbalee léegi bu ngeen fay tàmbalee ci baat da nga wër génn ci waat ñu ñaan bu yàlla donc waaye léegi ñu ne isbaar la woon ak takkusaan wala takkusaan tamit xam nga lu mu rëcc léegi dañuy julli vingt ñaar yoon bu ko defee vingt bi di nekk ñaari julli xam nga bu ñu jullee ñaari julli ñu ñaari julli xam nga léegi julli bi ak ci dañu dañu ci gannaaw julli la ñaari bi ci julli dem kon julli waale nga da nga xam ne boo ko juróom benn la man ko juróom dëkk ñu ngi xam ah ñu ngi xam noonu ñaareelu fan bon léegi ci baat bi xam nga bu fekkee ci baat bi julli woo ko ñu ci baat góor léegi nga tàmbalee nga fay ko ah xam nga julli yëpp julli yëpp boobu ñaara jëm ak di ko jëm benn la fàtte. xam nga bu dee xam nga su yàlla da ngay tàmbali ci baax rek. nga supposé ne ci baax daal moom di ci ñu yoon jël bu ko ñaareel bu ko ñetteel bu ko ñeenteel bu ko juróom bu ko juróom benneel bu ko waaw bu ko juróom benneel dégg nga xam nga comme boo jiyee bii da ngay wër ba dellu si julli bii nga daal di nettale ne xëy na bi bii ak bii wala bii ak bii la nga julliwaat ko ba léegi julli bi waaw takkusaan takkusaan takkusaan boo ko defee lu wér xam nga ñaareel nga koy def ndax ñaar ñaar dañu bokk jëf bokk ñu ndax suñu ak dëkk juróom ñoom rek dëkk juróom ñoom dëkk nekk dañu ndax sax xam juróom bi rek la waaw léegi daal ñu ñu ne ñu am naa jàpp ñu ñu dal maa ngi jëlee ko ñaareel ma bokk maa ngi jëlee ko ko ñoo bokk maa ngi jëlee ko ñoo ñoo bokk maa ngi jëlee ko ñoo ñoo bokk maa ngi jëlee ko ñoo ñoo bokk bokk ñu bokk waaw ndax juróom ñett day joxe parce que dañu gis kon bokk na yow sax. bu baax bu tàmmalee góor bu nekk ñaar yoon. waaw maanaam tey bi ngay tàmmalee. waaw boo dee bu soitee. bu dee bu dee bu dee yittu. waaw boo dee bu soitee moom ngay tàmmalee. moom ngay tàmmalee exactement. yéen a tàmmalee ñaar yoon. jafe solo su mbokk nag morom. àgg ci yàlla te am sëriñ mooy murid kon nag jëf ci yàlla. sëriñ bi ñu waxee ne aarif ñu mel ne médecin boo ñëwee day xam la médecin bu la passé ci xam bu la dal. aarif bu dee xam ban jàngoro réex mooy sa laago sa diggante sa borom pour nga mën a dem mu gis ni da nga may mu dina joxe loo sa alal jépp mu gis ni da nga bëgg jaxasoo ak waxtaan ak yooyu mu di ko sant wéet mu gis ni da nga rëy mu dina yalwaan lool ñu gis ne da nga bëgg lekk ñu di la woorloo di la affaire yi ishaara ak himma mooy méthode yooyu ñuy jëfandikoo oslat yooyu nga wax yëpp nit ki bi ñu ñëwee ala ya day cheikhin bu defal yooyu yëpp bokkul dootu ko defal ci lenn sëñ bi moo koy dindi defal nangam fi ishaara ci defal nangam doxal nii defal nii defal nii mooy moo xam ne nag ñeent yooyu yëpp sum albuuxu tawil ak saxaru ak osla yëpp dañ koy jëlee ci sëriñ bu mat sëriñ musaafaha moom tam di osla منها العقد بعجز والجوان لدى أهل التركة خصم بالحقيقة. أو إيه ما عدة عدة يحجمني كذلك أنا كان سبعة جرام من هذا. يتكلم يتقبل ولا؟ يتكلم يقول غني من هذا يتقبل ولا؟ غني من هذا. mu jël wala toftaloo bi sax toftalowul waaye xam ne yu mu doon. xam ne waaw mu julli ko benn julliwaat ko ñaareel gontaan lool. kon juróom-ñaar. waaw mu juróom-ñaar kii. misaal léegi léegi nga xam ne julli suba ba toog saa. toog saa loolu moom laa waaw dañuy yan bis daal. waaw waaw nga xam ne ñu leen topp. waaw parce que day julli suba. daa toog saa julliwaat suba daa toog saa. waaw baa moo toog saa. baa moo toog saa. mu juróom-ñaar bu arbaan bu fekkee ne ñeent la. salaata asharata. fukki julleeg ñett. ñeenti julli fàtte xamul ñoom gis la benn ñaar ñett ñeent ñeent yi ñu fàtte xam ni yoon la boo dee ñu fàtte rek ñeenti julli ñoo xam loolu xamul ni ñu ko faloo xamul ni ñu ko faloo te xamul yoon gis la boobu la wa arba salaasa asharata xam nga juróomi julli yi boo ko multiplier ñaar muy fukk. waaw ñett ci def mooy dafa baamu ñett ñett jublu ñu ci baamu mel na tey. tisbaar ngi nii. ñu julli ko ndax ñetti fan la ñeenti julli la fàtte. benn julli ñaar ñett ñeent. jullee ci benn julli ñaar ñett ñeent. jullee ci benn julli ñaar ñett ñeent. julli benn julli. waaw ak benn bi muy yokk ndax lu tax bés bi xam nga bés bi boo ci fàttee benn julli rek juróom yëpp la war a julli waaw kon bu fekkee ne dafa fàtte ñeenti julli yoo xam ne xëy na bokkuñu bis benn julli bi ci nekk dafa nekk jullul waaw par ñaar la par ñaar la ko julli ndax am na ñaar yoo xam ne bëccëg la ak yoo xam ne guddi la yoo xam ne guddi la léegi dafa fàtte ñeenti julli mu wax ko julli dafa ko baamuwaat ko ñaari yoon ne bu ñu weesu woon bi ba noppi baamuwaat ñaar xam nga bu baamuwee ñaari yoon rek muy jur fukki julli muy fukki julli waaw ñeenti julli la mu baamu ñett ñi mu mel ba mu dee ñaari julli rek nga baamuwaat benn bi dëgg xam nga fàtte ñaari julli bu jullee ñaari yoon day baamuwaat benn bi waaw léegi fii dafa fàtte ñeenti julli xam nga boo ñeenti ñaari julli nii boo baamu benn benn rek nga bàyyi baamu woo léegi kii boo jullee ñaari julli nii muy fukk day dund ñaari fan yu sax yu nga xam nga benn nga ci bàyyi boo baax mu waat kon ñett yi day baax mu waat nga xam ne kon bëgg na ñaar ñu ko julli ba mu des ñett yooyu moom dinañ ne téye na ko julli dégg nga mooy doon kër ñett laaj ñu seet waaw xalaat ba mu ko bopp léegi ñu ngi ci ko bopp waaw ñu ko ñu ko ñu ko def benn jullee ci bi xam nga fukki jullee mbàkk bi waaw xam nga bu fekkoon ñaari julli la woon dama ko am benn ba dafa des ndax fattale léegi muy ñeent ñett yi la war a baamu ngir fattale ndax ñaata yoon dafa mel ni léegi boo waroon a julli gannaaw ñeent yoon la da nga waroon a julli julli juróom ñeent yoon da nga waroon julli julli juróom ñeent yoon waaye loolu bi móoree ne ci ñeenti ay bés ñeenti fan waaye bu ñu jub bàyyi ñaari julli ci benn bis bàyyi ñaari julli ci benn bis moo tax muy baamu ñett yi beneen bi ci des soxlawul ndax moom la ñu jëf moom la ñu jëf kon mu moom ba soxlawul baamu ndax ndax sa xoolal sa ndax war na gën a wa arbaan wa in dakara arbaan من الفوائد مؤينات كصبح وظهر وعصر ومغرب من أربعة أيام من ينتفن مؤينات أم لا خمينك ولا خمك لا يعلم ترتيبها صلى صلاة صلاة بأن يصلي الأربعة مرتبة ثلاث مرات ويصلي مبتدأة مرة رابعة مبتدأة مرة رابعة waaw am te dama rek ma waaw waaw waaw bu dee misaal kat ak ab bënti da ngay misaal ab bënti waaw xam nga boo fekkee ne ñeenti julli nga julli li tax nga di ko baamu ñeenti yoon mooy benn bu ci ne mën na am muy julli ba kon boo ko jullee ñeenti yoon muy ñaata juróom-ñett nga baamuwaat kon ñaar ñun kon ñaar. nga baamu benn bu nga jëkkoon loolu la def. waaye fii am na lu jëm. waaw fii ñu ngi fàttaliku ne. ñu ngi gën a gën a gën a jigéen bi tàmbalee. julli bu ko nekk jigéen ñi xam na yan jigéen la. waaye nag ñu ngi ko tëral ñu ngi ko tëral toxtal bi la xam. ndax dina ma fay ñu tëral bi ñu toxtal bi la xam. waaw fii moom dafa xam ne tey maanaam yan julli ne toxtal bi la xam la xam. waaw ñu bàyyi ñaari julli. waaw ndax ñu tàng la tis ba ak perte sang turis. waaw xam nga ñu bàyyi ñaari ñu bàyyi ñett yi. waaw ñu bàyyi ñeent yi. ñu bàyyi juróom yi waaw fii yëpp moom. problème mooy xam nga yan julli la. mais bu ngeen ni nan la ñu ko toll. nan la ñu ko toll waaw. kon léegi boobaa ni muy def mooy julli yooyu bàyyi. waaw benn yooyu da koy julli. waaw nangam yoon baamuwaat bi. baamuwaat bi def waaw kañ waaw waaw waaw. bu ma la doon misaal nga la day baamu ñett yi. ak guñ ci bopp bi. te moo tax ñu ko wax. waaw boobaa dugg ci moom ci kanam. léegi xam nga kon ñeenti julli la moo tax ñu julli semaine bi ñeenti yoon. maanaam bis bi bis julli bis bi ñeenti yoon. kon benn bu ci nekk mën na jàpp ne moo doon bu njëkk ba mu baamuwaat ba ñeent ñu jeex moo tax muy julli julli bis bi ñeent yoon bu ko defee muy ñaata julli fukki juleen ñu ñaar fukki juleen ñu mu baamu bis bi mu tàmbalee woon mooy mooy
naan trois fois quatre jours rek yàq waaw trois fois quatre jours moo ko yàq benn waaw démb ca jàng bi ñu jékki waaw doon ko ñu tànn waaw dama bëggoon dama bëggoon noonu trois fois quatre jours waaw noonu laa waxoon dégg nga mooy wa arbaan talaata asarata wa xamsan xidaa wa ishirin léegi juróomi junni la fàtte quatre fois cinq mu baamu mu def waaw ba tey ba tey waaw ni mu ko misaalee ndax xam nga li wax la ni ki mu ayyana waaw mu ayyana waaw léegi julli bu ci nekk jàpp nga ne mooy bu ñu jullee jàpp nga ne mooy bu njëkk ba mu baamuwaat dégg kon cinq quatre fois cinq fois. quatre cinq nag mu baamuwaat. waaw mu wasalla jullee na si salaasin. ci ñett ah ci salaasin ci ñett. mu ràtt ba tamit duñ soxla. après mu ñëw ñu ci gis. waaye laa la mu xamal amul laa bu njëkk ba mu julli sab an juróom-ñaar ñetti julli la fàtte yoo xam ne leer nañ ne moo tax taloo waaye xamul yan la waaye xam ne rek julli ñoo tax taloo tey benn gis la ñett yëpp ci benn gis la xamul daal gisu njëkk boo mënu ko tax dina soxla juróom-ñaar lay julli ko defee day julli ak julli ak julli ñetti julli loolu ñetti jullee ngoon li julli mu ne xëy na mooy yooyu ñu ah xëy na du woon moom kat yi ma julli bari ma bokk ci mu julliwaat ñetti julli mu ñaata juróom benn mu teg ci biir mu juróom ñaar wa arbaan su fekkee ne ñeenti julli nag ba tey samaan yenn juróom ñaar yoon ñaar julli yoon